jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay fii ci xel comme automobile yaakaar naa ne nag tey gis ngeen beneen combat bi nga xam ne Momo production moo ko taxawal dox ci diggante Talla Gaynde numéro de bu écurie Pape Dambay si parcelle ak xale bi ngeen mooy Abada bu tuubaatul nekk écurie Soumbédioune mu nekk combat boo xam ne bu neex la Talla mi yaakaar naa ne bëri na adversaire yu ñu ko doon jox mais adversaire yooyu nanguwuñu pour bëre ak moom abada aussi tamit wutal nañ ko adversaire bu dul adversaire u Djiné si làmb ji mais booy bu ñëw bu xoolee dawaat ñoom ñaar nag xàmmeewuñ jaaj ak joor leeru gumba lañ xàmmeewuñ bun booj ak bu ñu baxam ba tax na tey ñu war a ñëw fii jàkkaarloo nag pour le 28 janvier si diggante anakonda ak booy Sey numéro 2 si diggante Kaani Sadam ak Ngal Jonn ci diggante Yankaw ak Bébé Guy gi ci diggante internet ak xale bi nga xam mooy armée Dieye bari na tàkkusaan googu ndaanaan yu siy bëre yaakaar naa ne ñoom xale bi nga xamante bi ni mooy kii nu mu tuddati euh, caatu kajoor dina fa bëri ak saa bawal bëri nan daanaan yoo xamante bi nii dina bëri si tàkkusaanagu le 28 décembre le 28 janvier ak Momo production abada maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar bàyyi la nga nuyu mbokk internet waaw ginnaaw ban sant yàlla jëlee ci yeneen di sant suñu ñaari waajur di sant ñëpp di di sant sama waajur di sant waa Touba Toul mm-hmm. di nuyu sama bu baax a baax di leen nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm bu am na solo Talla Gaindé numéro 2 maa ngi bëggee. waaw ah, ginnaaw baat auzubillah bisimilah inna wali yàlla rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ginnaaw ban sant yàlla julli sonante bi di sant sama ñaari waajur di sant sama maam yàlla baay ko fi mu gudd fan lool di sant sama sëriñ maam lamp sëriñ Assane Fall naar kaw sara Fall di sant maam Gunda rakam bu baax a baax a baax di leen ñaanal wér ak gudd fan di sant waa kaw sara yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di sant sunu bunt ci kër Cheikh Ibrahima Fall muy sa am di Xadi di sant sëñ sëñ Mountakha bu baax a baax baax di sant waa parcelle 1 ba 26 yëpp di la sant di sant sama adversaire moom mi nangoo jël combat bi. Mm-hmm. moom mi nangoo jël combat bi kon de daaw lu ñu yàggoon bëgg la parce que yaakaar naa daaw léegi ñu ngi toog mënuñu am adversaire. pour bëre bu ñu gisee ku ñu bëre dañuy bëre. Ah. comme noonu tamit ni mu ko waxee sama mbokku Baye Fall la. Mm-hmm. maa ngi sant waa Ndar Fall ñëpp tamit. Mm. di ziar sama sëriñ sëñ Modou Abdoulaye Fall. di ah. di ziar jawrin yëpp di ziar ñëpp di ko wax ne kon ay Baye Fall lañu mën moom hmm. nañ ko def ci fair play ñu bëri ci yàlla may ma ndam ci kawam kon de kuur yi dina génn incha allahu rabbi léppay am incha allah kuur génn kuur ma ne ko kuy dóor sa bopp ah. kaa ñu dóorante safuta wax ah. ñun dañoo runge ñun dañoo jaar fu ne baat sëñ Baama dañoo jaar fu ne hmm. waaw daj ne kon nag duñ jaaxaale suñu moroom góor di delloo avance. Hmm. jomm nañu loolu barki sëñ Touba delloo avance du am. barki alxuraani karim man bu dee daj lu métti fii la fekk baax ñun ñoo la gën a daj lu métti fuuf booy. Ah, fii ñoo la gën a daj lu métti fuuf daj moo tax mënuñu am adversaire ci làmb ji ñoo la gën a daj lu tar fuuf xoolal suñu kanam yi xool ma xool ma. xool ma bu baax. déggoo li mu la wax de. bu dee daj lu métti ñoo la gën a daj lu métti fuuf. ku nekk xamal sa bopp man maa la gën a daj lu métti téeméeri junni yoon. maa la jël bu gaaw jël bu jël bu gaaw yow laay daan jël bu gaaw yow ndaama nga say cër jotul ah. <laughs> ma yàlla bindee yow su ma jàppee su ma neexee doo jàpp ndaama yëgul njool de bu ñu bëree ma daan la bu ñu xeexee ma duma la duma yu metti ñu la daq ñu la daqal bëri laay téye ci ay seconde maa la daq bëri eh, ay ku daan ay fils de kat yi daan ay fils de kat yi ñi ñi nga bëreel yow la concerné man ñi may bëreel bëreel naa ñoom ba pare daan bébé zéro leen a yegg fii daan naa leen ah daan naa leen ba pare ñi nga xamante ne ñoo ma daan yow koo daan daanoo fi kenn jeex na daanaan la six combat li mu la de li passé suñu ginnaaw passé na ñun instant nii nii nii bii moo nekk suñu premier combat déggoo ma de. kon sa premier combat ci ngay daanoo. ba jour ji incha allah ba le 28 incha allah rabi doole daaxoo bëre dàqoo ma xeex da ngay wax rek lépp maa la ko ah, ëppale. su ma jàppee su ma neexee doo jàpp. soo bëggee mën nañ tàmbali. par force laa lay wax du wér. déggoo ma de. Eh, dañoo jox avant par force yàkkamti. Eh, abada képp ku ko yàkkamti da xamul. barki Seydina Mohamed ku ma yàkkamti xamoo ma. bu laay kii dafa say mbokk boo ñëwee boo demee nga tàggu say mbokk nga ne abada laa war a bëreel. dafa dafa réer kii xamuñu ko kii kenn xamu ko. kii kenn xamu ko. kii ba sama sama sama grand ba ma ne ko ba ma ne ko ma kuy kooku. barki alxuraan kam daf na ma kuy kooku. waaw man xamoo man tamit man laa gis tey. man tamit xamoo ma ah. garaawul cooru jib. mais bu la jour jee incha allah di ma xam. déggoo leen si biir géew bi. man tamit fay bàyyi samay grand ñoom baabeen fee laa leen di ci yow. def leen teg yow lu tar. di ma xam. billaay wallaay. kii loolu moom booyee wax moom bu tëddee ak ay mbokam bilaay du ngeen nelew du nelew xam la la si am comment am la la si am préparé ba jour si ñu ne ko ñu ne ko abada yaag taal a génn leen si biir géew bi oh. bon loolaa kat doy waa affaire bu garaaw ngay wax yow. <laughs> lu boo daw gen géew bi sax. bii bu paasee Amady ak Talla génn ci digg géew bi sax. di ko ñaanal jàmm nag di ko ñaanal wér. barke Serigne sama mbokkum Baye Fall la. waaw affaire yi nag nay neex quoi mais tamit nañu joxe ci quoi. Ah, waaw fair play quoi. am terewul moom. Hmm. dinañ joxante fair play mais bal bu tàkkee moom. Hmm. ku ne dina xam kuy sa kuy sa chef. ok am na solo eh, léegi nag Khalil lii dafa rafet Baba Diaw kaay Modou Baye Fall kaay lii dafa rafet parce que Baba dafa jëm ci bis. yaakaar naa ne nag ñëpp xam nañ la vingt cinq décembre ci la dugg si woon ci làmb organisé ki nga xam ne kaay taxawee nii mooy Pape Ndoye ak xale bi nga xam ne mooy Jackson ba mu fa jógee nag comme bi ma ko jëlee interview promoteur la boo xam ne jar na félicité parce que ndaw la boo xamante bi nii mi ngi participer ci développement wu réew mi depuis mu ñëw si làmb mooy njiital Thiam production ba tey yaakaar naa ne mi ngi innové gis ngeen fi soq ak gàmmu gay gis ngeen fi Cowens ak double moteur combat yooyu yëpp macha allah moo ko tëggoon gis ngeen fi Jackson aussi tamit ak Ahmed Dem gis ngeen fi ñàq jariñu ak xale bi nga xamante bi nii mooy Jackson gis ngeen fi Pape ak xale bi nga xam ne mooy Jackson kon yaakaar naa ne yàgg na si làmb di organiser ay événement yu neex kii aussi tamit di Momo production gis ngeen tàkkusaan nga xam mooy caatu Daouda Fall ak xale bi nga xam mooy Youssou Ndour bu la bi gi waaye du ngeen fàtte fa ak Soq bu ndaw mbaytin ak xeeru ngor yaakaar naa ne journée yooyu yëpp moo ko organisé woon Thiam maa ngi lay nuyu baax baax di la ziar. waaw Mawal maa lay fay xam nga di la nuyu. Mm-hmm. di nuyu Modou Baye Talla Gaynde xam nga du nuyu maintenant bu ma dëkk Fass Colobane xam nga Gueule Tapée bi yëpp daal waaw vingt cinq yaa ngi waaj waaw ngi waaj bu baax xama nga ànd ànd nga waan ngaa suma ay mbokk xam nga ànd ko tamit Abdoulaye ak xam nga waan suma gaay yëpp ñoom Dieye ñoom euh, Gibson ñoom Ibla Diouf xam nga ak staff te incha allah vingt cinq ku fa ñëw nu doon demee rek non bii bi mooy gën a pire. Hmm. waaw saa suñu borom. ci diggante bébé Saloum Serigne Ndiaye numéro 2 soq ak birima ma ca benn baat ba Jackson. <laughs> Jackson am na yeneen combat la ñuy mu sotti. Hmm. mais avant tout. damay gëm Modou Baye Fall. waaw ndax suñu waay la. démb la woon tey soog a ñëw. Hmm. kon tey xam nga soxlaa. nga sama booy. dama ci def jéego. ba mu sotti. xam nga du ko ñaanal nag euh, le vingt huit janvier mu réussir total. ma. Mhm. ba mu baax la. macha ma soxla oto. Mhm. damay ñëw mu jàpp si. ci kon kooku suma nit la. Mhm. kon dañ koy ñaanal mu réussir total. mais nag du waaj le vingt cinq décembre. le vingt cinq décembre. du yomb de. ci le vingt waa waa vingt cinq décembre moom lan la. peut-être xam naa day tombé. waaw day tombé et puis man man man damay bëgg ko wu jànk. waaw lambu xale. dama koy bëgg mais gëm naa la le vingt cinq bi moom. Hmm. du yomb daal. cey birima bu ñëwee ba soq ñëw. du yomb soq de barke sëñ Ba Mbàkke la muy waaj man nee na moo daan tan non du wax jëf laay xaar. waaw ah, mais noonu la ndax tey xam nga adduna ñëpp dañuy toog du ko xaar. Hmm. kon wan wan nañu si beneen anam bu bokk ak bu ñoom ñëwee. Euh, Jackson tamit day bëgg a ñëw confirmer. xam nga bëgg egg si kaw. Mhm. moo tax ma ne combat bi du yomb. Mhm. Serigne Ndiaye itam day bëgg a génn. benn Bébé Saloum itam dafa bëgg <laughs> ñaan rek. Mhm. bala vingt cinq décembre. incha allah wax nag mënuñu bu baax. mais dañuy jéem rek. incha allah incha allah. kookoy Baba Diaw moomoo moom maa ngi nuyu di ziar. di nuyu ñaari mbër Abada Talla Gaynde di nuyu Baba di nuyu sa caméraman di jaaraat baaba bu baax mm. di wax ne lii nii yombul quoi mm. bu ko neexoon booy bii nii booyam la mu jël ko dugal ko si journée am mm. mais souvent dañuy gis promoteur jël mbërëm joxe ko parce que fi mu koy teg moo tax du ko mën a organiser yéene bi mu am si moom du ko mën a dugal si journée am du ko yëkkati jox ko keneen pour mën koo taxaw jàppale ko di wax ne booy bii nag ne ko am na sas ah, parce que li baaba li baaba def yombul ku xam baaba waaw ku xam baaba xam Modou Baye Fall xam na ñun amuñu jot ñoo ngi mm. daw suba ngoon 24 24 ñoo ngi tourné mm. kon bu bàyyi itteem yëpp si portal yi su ma doon andi la pour utale adversaire mm. wallaahi la azim am nga grand bu baax nga góor bu baax moom tamit li ma koy sas pa Aline ah. yàgg na ma sonal ah. taala gaynde taala gaynde moom ak lagrose lañ bëggoon ñu dem ba si biir lagrose delloo comprend nga bu sonn si moom lool ba combat bi tey mu taxaw gën góorgóorluwaat bu baax entraîné indi fulaak fayda xam nga ngeen du leen jàppale ngeen jënd ko bee jàppale promoteur bi. Mhm. que le maire gagne. Faaline mhm. mhm. kaay euh, euh, loo ci sànni mais ba baaba sa doom nga àndal de Faaline andi ànd doomam. waaw abada abada dañ koy ñaanal rek xale bu bëgg lu muy def la. xale nag su bëggee lu ngi def day neex a gunge. te incha allah moom combat bi lu ñu si mën. dinañ ko def dëkk bi ñëpp ñëw maintenant ñëpp génn. gunge ko soo suñu boobu. Mhm. waaw mais Talla Gaindé dagaan na la bloc de. Talla incha allah naa ko jox benn blocam. bu ko waxee dina ko def de. incha allah moog Birima mi yam ma benn baat bala paalin. moo daan ñu ngi jaar ba ah mhm. li combat bu neex la rek maa ngi nuyu ñëpp avant tout di sant ñëpp. di mhm. nuyu aussi tamit Babou Diaw ak Modou Baye Fall ñoom sama la sama mhm. sama nit bu baax la mais lii tamit làmb kese la quoi. que le meilleur gagne quoi mais maa ngi ñaanal sama sama ah. booy sama frère. yàlla may ko ndam. waaw moom tamit sama mbokk la sama mbokk bawal bawal la man waa Touba Toula foofu laa bokk. Eh, mais làmb mais làmb booy gën a jege gën a yey lañu waaw foofu lañu waxee waaw noonu la demee quoi mais ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm Baba Diaw tam ñu ngi koy ñaanal journée bi la vingt cinq mu am si réussite totale Modou Modou Modou Baye moom yaa ma xam nit ku baax la mais que le meilleur gagne quoi. mais quatre personnes laa la may nag. am ku may jaale. sama benn boy bu doon toog sama cumikaay. Oh. ñu ko wax Ibrahima Cissé. Ah. xalil bu njóogu affaire dafa gën àdduna ajuma bi passé mm-hmm. ma koy masawu ñëpp. ko sori woon ci man trop wallahi depuis 2012 ba léegi maanaam ñoom ñooy ànd macha billaahi muy xale koo xamante ne nii dafa sori woon ci man di ma defal lu ne mm-hmm. barkaar war ma koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla koy la xare aljana di ko jaale ay mbokkam yëpp di ko jaale ñëpp tamit di kontaan ñi nga xam ñëw nañ ci dëj bi ñoom ñëpp maa ngi kontaan ñoom bu baax a baax aw ma seen fay tuubaatul nag maa leen di woo mm-hmm. mm-hmm. di woo nga jàpp si biir yi xam ne moom lamb laa bëgg te lam man ci lam lam laay dox di wax waa Touba yëpp seen doom jógati na abada ñu bébé Seklo ñu jàpp si bu baax a baax 96 villages yëpp Médina mm. Soumbédioune waa suñu waa écrit maa leen di woo Moli maa ngi woo ñëpp waaw di woo ñëpp bàyyiwuma kenn waa village artisanal ñoom ñëpp maa leen di woo ñu jàpp si combat bi bu baax a baax ayca maa ngi woo waa Kel mm. waa Ngaay mm. xam nga waa Paal waa Durop Diouf ak waa Kewre di woo waa Casamance waa Bëlingoor Tendimane Tionkosin xam nga man de gën di woo waa Bëlinte Kunda bi waa Saame xam nga waa Kuñaara maa ngi woo xam nga maa ngi woo ñëpp daal su ma limee dafa jum xaju fi quoi moo tax waaw di wax di di waaw sëñ làmp maa ngi koy woo ko sama sëriñ la sama sama lépp la waaw maa ngi nuyu waa kel jël loxo jël nuyoo bi teg ko sama loxo ndijaay Birama mu tegal ma ko ci loxo euh, waa Suqali Kajoor waaw waa Suqali Kajoor maa leen di woo bu baax a baax a baax baax a baax di woo ñëpp daal jërëjëf Talla ayca joxante leen